daara ñëw bu ma bu ma li may lekk xam nga ko li ma naan jël xam nga ko nëbb ko nit ñi daal ah, nekk protéine laa doon jël di ko accéléré bi maanaam boo jëlee protéine war ko naan ci un pot bi man ci 4 jours 5 jours laa koy naan protéine bu mag bi nga jël lépp di ko su ma ndékkee ba bala maa dem salle dinaa naan su ma demee entraînement dinaa naan su ma ñëwee bala maa sangu dinaa naan naan oh. pour accélérer ko ah. pour man jamono yooyu noonu jamono yooyu benn man léegi ñu naan bëri yaa fi parce que man boo mag na sama bopp. dëgg la de. yaa ngi dégg mais bi ma amee ak yenn sama. nga jël protéine bi rek di di di di di di naan. te la laay waxee du ma nëbb dëgg mais protéine bu bëri baaxul aussi. da lay rey da lay rey kay y' d' effets d' effets secondaires. da am endurance sax sa day gonflé. oui da ngay bëri feebar di noyyi noyyi bu gaaw goo xam ne nii. Oh. da nga doon am problème mais après. andi baaxul de. mais am na benn benn